allo Ndiop <laughs> maa ngi génne léegi léegi tout de suite tout de suite je vais sortir waaw tout de suite sortir tout de suite sortir waaw tout de suite sortir maa ngi génne léegi <laughs> waaw d'accord d'accord donc waa fole ah c'est ça yow da ngaa garaw rek waaye eh. d'accord d'accord d'accord maa ngi génn léegi léegi léegi damay jël petit dé déjeuner rek petit dé déjeuner rek après may ñëw ñu dem voilà c'est ça Joe Bal Chéri Awa Guèye eh ku <laughs> la faale doon sa seetu ku la xool man lay gisaale doon sa soumise ku la laal may doon sa karawaana ku la faalewul man mi maa lay faale doon sa tuubay ku la sol man la fay fekk ku la faalewul man aw maa lay faale doon sa beecoo ku la laal maay sa njit laay doon say lex yi ku la biisu man lay biisu ku la faalewul man mii maa lay faale doon sa téléphone ku la sinap man mii lay diis loo waxati li ya taxoon buñ ma digal ma bañ ah yow digal digal luñ digal nga ah luñ digal digal man dong la man dong la man dong la gaay kan? ay yàlla pardon waaye kaaw dama lay laaj rek man ak yow ndax yërëm ma la waaw xooloo dara rek sa yaram di daw ci man yow ndeysaan yërëm naa la kon nag yërëm la moo ma indi la si kër bi yërëm la moo tax ma dugal la si parament yu mel ni yërëm la moo may xalaat sax jëli sama benn raka pour mu wetali la si biir kër bi lan mooy nekk problème bi loolu mooy yërmaande bi waaw kaw man damaa bëgg nga yërëm ma ci dem gi ngay dem dima ma fi bàyyi ak ñëw gi nga ñëw di ma fi fekk ci loolu laa bëggoon nga yërëm ma lillahi wa rasuli nga toog ci kër gi waay ji diñu jiite ci jàkka ji diñuy bëgg rey loo def mu ne araam na. non moom araamu moom. nag. rek leen. lu xewati yow it. am na ñaari paa yu fi ñëwoon di la seet. lu xew. gaa kenn ki moom nee na kontaan na ndax jot na këyit jotagul terrain bi waaye jot na këyitu terrain bi. waaye ka ca des moom a jaaxal. lu mu wax. ah nee terrain ba dem na foofu mais ñaari nit nga ko jaay moom ak keneen. erreur boobu nu a amee. taw mbaa yëg nga ni sonn naa ci say caprice yow li nga nekkee yaa jóob faal ci digg dëkk bi yëpp yëg naa ko ndax xam nga lu tax kaaw déglul eh eh bàyyi ma ba ma pare jóob faal moom dagg na sama xol bi muy mën ne butéelu gaz bu ndaw. Eh, eh, waxal lu nekk jóob ba mu des gaz bu ndaw waxal lu nekk jóob ba mu faal moo la gën a sa jabar. ah la jóob faal ko sëy lam du wax si dul lu baax si yow. du def lu dul baax si yow lay waxal la nga bugg a taxaw fii ngay waxal Diop Fall leen ngay waxal ko. te yow xam nga sama mbir man damaa mës ragal affaire suuf. xam naa. moo tax ba nga ne dañ ciy dugg man na la est-ce que xalaat nga ko baax a baax parce que dafa bari problème. chérie loolu yëpp xam naa ko waaye ku mel ni yow dafa yombul man bu may dem fii laa lay bàyyi su ma see fii ngay toog. est-ce que jaadu na kon muy liggéey ay ñaar dërëm ak ñetti dërëm di la ko indil déedéet luy jar ay millions ak ay téeméeri junni laa la yéene. yow léegi Diouf moo la gënal sa jabar. doom amul ci gënalu ma sama jabar lu ma sama jabar. kaaw yu kon sama xarit la. waa déglu booy wax xoolal li ngay wax si Diop. di ay ñëw rek ngay xool Diop boobu. dama ne la loo dugg suba ba jot sa jóoba la ci dugal ak gàttaay la dégg ma beneen bi nag mooy kaaw waa déglu ma rek. ba ma wax lu la neex ku ne bul tudd gàttaay. kër gi tey doo ko génn ndax xamoo lu tax. waaw ah. ba may bandi bandi woo ba may nand yaa nga dëkk ba kaaw yow miy jóge dëkk ba bu dee yow yaa mën a nand yow mi jël juróom-ñaari oto ñaari saret yaa xam li xew si dëkk bi waxuma laa man mi ñu bëkkatalee fii dégg nga ma bu baax a baax kaaw an biddi ko ko nangu maan yuxu yow dangaa dox wala dangaa lekk poobar yow su ma génnul si day am heure eh, yow 8 heures ngay xëy. waaw 22 heures ngay wàcc wala minuit kaa loolu ban façon liggéey la. te pareegu ma de sa yaay dina siara ji màkk sa papa siyaara ji màkk sa ndijaay siyaara ji màkk. yow nag sa màkk dañ koy àndandoo couple ko juróom yoon di ajandoo di ajjandoo te boo xefee nag bu ma ak yow lu nuy tere màkk dinaa ko def. bànneex. Ah. loolu la Mhm. nga def ko ci alal joo xamante nii du la àndil benn problème yow leer na la man toppee ma la alal man jàmm ji nga may jox rek ak li ma téye rek neex na ma téye ko samay mbokk du dëgg mhm. kon bu lay dugg na leer reetaanal yaa ngi réeloo. barke Rasulullah su ma génnul kër bi yàlla naka dala cara. kon de di nga may nekk di jaay suuf temps yi maa Diop jaay suuf la ñuy def. si terrain yi. courtier des si àll yi ba 3 heures 2 heures du matin. courtier 2 heures du matin yow Kaaw man da ngaa foog ne damaa dof. waaw yow li ngeen nekkee laa bul ñaan yàlla ma teg ci sama bët bii maa ngi dégg nag lu ne. Ah. du ma la wax dara nag dama ne la kër gi tey doo ko génn. wala dégg ko kon ngay dégg dégg leen damay dem par force eh, te wala kii mimi wanakija juma wax ngay wax ete eh, mami haalde dum nene ma de kawe wax ko sama yaay yoosaale sama papa faalewuma la gis nga li wax li xam nga lu may fàttali mm. waaja da ay bokkam dañoo dajaloo takkal ko jabar mu ne bëggul jigéen jóge fële ñëw ni ko maa bëgg mu ne bëggul ñu bàyyi ko moom mu dem def choix jëlal boppam loolu ma dal ci yow moo tax ma ne jabar ñett la ji nga jël ak ji la jël ak ji ñu la jëlal jabar ñett la <laughs> ji nga jël ji la jël ak ji ñu la uy ma xam nga jëkkër na la nopp te danga maa nopp waaw koy sima waaye waaye wuy ma nag damaa ragal réseaux sociaux yi ak yooyu sama diggante ak yow la de dama woon àdduna yi sama jëkkër daf may ta euh, taasu di ma feccal ak fi ma teg waaye xam nga comme jàkka ji danoo jege eh, sa kër nga nekk aca nga ne. jabar ñett la ji la jël ak ji nga jël ak ji ñu la jëlal jabar ñett la. ji nga jël ak ji la ay ay eh, eh, yow ku la gënal. yow. foo ma def. <laughs> leen jëkkër yu baax na àdduna abu sedd la. koo ko ci deful yàqu nga de. Eh, yaa ci erreur bu rëy. wuy ma. loo njoñ ci biir waañ wi. lu la xeeñ. lii du dëgg lii du ma ko laal xam nga lu ma bëgg a aje tey. du ma ko nar a mm. kese. <laughs>